ndajeem tey mi kat li ko waral. mooy leeral euh, euh, li nga xamee ni mooy euh, liggéey bi nga xamee ni ak projet yi nga xamee ni xuddaamul xadim daayira bi tudd xuddaamul xadim sëñ Xamsatu Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ci ndigalu Cheikh Saalihu Mbàkke moom lañ doon andi ay leeral surtout rawatina ci ginnaaw am na sorti boo xamee ni commission bi nga xamee ne moo yore wàllu sécurité am na jama yu mu jamatoon ci teewaayu pourtant boobu sax euh, police mi ngi teew euh, commissaire euh, normalement bu janatu ah ci kanam yëpp faaye dañoo xam ne civil amul droit di gàddu donte am nga autorisation ay fetal ak ay kii yeeg yooyu bokk ci nité la doog nité doog nité même boo amee sañ-sañ bi tam war ngaa mën a am nee noo ko def bàyyi ñi nga xamee ne ñoom ñoo yor sécurité bi ñu cherché leen loolu donc ñooñu mën a taxaw pour yor loolu euh, biñ gisee nag ñu yore loolu donc ci leen leen woo leerale leen ne leen lii ngeen def nii euh, donc xuddaamul xaddiim ci yi nga xamee ni mooy ay ngëm-ngëmam ak ay pas-pasam doxiwut noonu doxut ci leen loo xamee ni dafay indi violence wala dafay indi jiixi jaax ci askan wi ndax li ko tax a jóg mooy jàmm ji nga xam ne moom la Cheikh Khadim woote woon même buy xeex itam comme ni suñ tubaab doon xeexee rek waaw inni ujahidu bil ulumi ñun xam-xam la ñuy xeex ak ragal yàlla donc xam-xam boobu nag moom lañ jiital euh, ci biir xuddaam moo tax mu composé ay commission yu bare bari nga xamee ni sécurité moo ci gën a tuuti donc euh, comité bi nga xamee ni mooy scientifique li muy liggéey kenn xamul nu mu toll scientifique rek nga xamee ni euh, Serigne Saliou Mbacke moom xam sa moo ko jiite di ci dox dox yu am solo yoo xam ne chaque jour mi ngi ci ah commission discipline itam li muy liggéey kenn xamul nu mu toll mais nag yooyu feeñut parce que dañuy dem ci euh, xam nga Touba dafa rëy Touba dafa rëy euh, euh, di dem di sensibiliser nit ñi fàttali leen leeral leen njàngum sëriñ bi nu ñu war a ñëw ci dëkk bi nu ñu war a tooge am na ñoo xam boo leen fàttalee dañuy daal di delluwaat ah daani lii kat xamuñu ko woon daal di delluwaat bu ko defee ñu daal di fàttali ko loolu la ñuy def waaye doxuñu pour lenn lu dul liggéey xat Khadim ndax bu fekkee ni suñ borom dalaa boole ci sëriñ bi ko xéwal gu rëy goo xamee ni nag tokkouragé la bara ëpp naa def ah delloo njukkal sëriñ bi ci lépp loo xamee ni bëgg-bëggam la ci dëkk bi ñu dox ko lépp loo xamee ni bokkutoon ci bi muy sax ci dëkk bi euh, ñu fexe ba loolu dañ lii rek mooy mais dindi gi nag du dindi ay coow ak ay xulo wala ay violence wala dara non lépp dañ koy def ci lan ci ak teey ak teg akub xel parce que nit ñi ay nit lañ dañ leen di traité comme ay nit mais du ñu ay leneen léegi bu ko defee itam euh, commission bi nga xamee ni comme mu Diop Diobé euh, jiite na ko ah euh, dafa am ndigal jëmmi gendarmerie ñoo ko soxla jëmmi police ci boppam ñoom ñoo ko soxla préfet bindal ñu kayit. Ah, euh, ci kii euh, mën naa génn décret yim kii yëpp nga xamee ni préfet sous préfet même procureur tout le monde ñëpp lay liggéeyal chaque jour mu leen di jàppale euh, di wan ci bara bi nga xamee ni saa bu leen leeralee ñoom ñoo koy booleeg trois éléments wala quatre éléments ñu dem parce que xam na ni waa ab civil la amul droit di jàppaate kenn même bu demoon ci mbedd mi itam ba gis koo xamee ni xaj na daa yor lu ñu tere ci dëkk bi dana ko ak police police ñëw jël si ko lool mooy loolu mais xuddaam amul ay police religieux yi euh, ci réseaux sociaux yi ñuy wax di sos di ki ak yooyu lan la ñu doyee loolu mais ñun ñooy ay jàngkat gëm Sëñ waa xam lépp ay citoyen nekk ci réew mi xam li war a xam lépp donc amul dara loo xamee ni dañ koy def luy juyoog njàngalem Sëñ Tuubaa lépp luy juyoog kàddu kilifa gi wala luy juyoog état parce que benn système la wala benn dustuur la boo xamee ne mais maa ngi ci yam ñëpp dañ ko war respecté. déedéet musta yoonu boppam parce parce booy ber sa yoonu bopp nit du ber yoonu boppam nit euh, bu fekkee da ngaa gis ñuy dox te li ñuy dox euh, di ay loi yoo xam ne dañ ko wote man ci laa euh, bokk ci ñu ko wote ci nga bokk ci ñu ko wote non kooku kenn du violé képp koo gis koo xamee ni te loolu jàng nañ ko rasulullah yi jàngal nañu ko nee na mbooloo kenn du ko beddee beddeeku Ah, man chasda chasda fi nahaari ah am mbooloo kenn du beddeeku àndal ak ñoom seen i ngëm-ngëm seen i pas-pas seen i xalaat àdduna nag wala tan sa nasibaka mina dunya lañ wax ay nit bu ñu waxtaanee ba xool ne lii bu ñu ko doxalee seen àdduna mën a jàkk ñoom ñëpp dañu war a ku ci àndul rek kooku l'islam taxaw na jël na ay ah, dogal ay mesures yoo xam ne ah, dañ ko war a éliminer kooku kon amul dara lu ñu kii yooyu na ci loolu. waaw mooy xodaan sama poste mooy xudaam sama poche la jógee mooy mooy xudaam ci poche mu Jóob Joobe ci poche sañ am sa ci la ñu jógee ñun euh, euh, sëñ bi bàyyiwuñu mais amuñu dara kenn ku ñu joxagun dara bañ tàmbalee ba léegi amul kenn ku ñuy jox dara no ay jigéen nag ay daani jigéen ak yooyu moom euh, déedéet yooyu ñun duñ daan jigéen duñ daan góor daan ñun waruñu bu buñ gisee koo xamee ni violé na loi bi ñu jox ko police gendarmerie ñoom ñooy daan bu daan ñu suñu yëndiku ci daan parce que ñu ay citoyen ren maa ngi yow ñooy yem ah kon du ma la daan du ma la def dara non non amul benn problème ci loolu non non pas waaw euh, euh, euh, ci safina amaan bi ngay wax ñun amuñu problème ak safina amuñu problème ak muqaddimatul xidma amuñu problème al wafa amuñu problème ak benn daayira bu fi nekk ñëpp lañ jox loxo collaboré màggal yi dañoo collaboré màggaloog sëñ Abdou Khadir màggaloog sëñ Chahib màggal sëñ Abdou Lahat pourtant ay màggal lañ te pourtant jàmbur lañ séex kii day liggéey fii kii liggéey fii tool sëñ Tuubaa dafa bari da ngay yónnee jëwrin fii yónni fii jëwrin yónni fii jëwrin safri amaan non bu nit ñi di dugg ci euh, diggante boobu sëñ Modou Lo maa ngi moom bii waxtaan nañ ba lu baree bari euh, euh, xuddaam aw tur la ab am na récépissé Safina aw tur la am na récépissé benn bu ne social yi moo ko joxe woon ñun maanaam bu ñu àndul nii ci ci bokk ci benn itam ñun ñoo ànd ngëm-ngëm pas-pas lépp ñoo koy bokku liggéey biñ mujjee daje. ah dafa kontaan lool daan ni lépp loo xamee ni xuddaam comme dama kon woo sax mu ñëw moom conférence de presse bi sax moom moo ko waroon a def parce que bu xuddaam di def na mbud loo ñëw def ko bu safina di def naa ñëw def ko ñun noon noonu lañ ñun amuñu ay jëmmi Sëñ Tuubaa xanaa du dëgg mais Sëñ Tuubaa ñun amuñu ay xàjj ak seen amul naan kii di xëcc fii xëcc fii xëccoo pour lan ban intérêt moo ci nekk liggéey sëñ bi rek moo ci nekk kon kon ñun ak waa safina benn lañ ñun ak ku dul safina itam benn lañ ñun benn lañu amul amul xajj amul ñaar donc loolu waxtaan waxtaane ko suñu biir ba buñ xajal kenn muy dugg ci biir naan ay safir li mu bëggoon a liggéey li xuddaam da koy nangu xuddaam lu muy nangu xuddaam dafa yor euh, ay principe yu boppam mais safina yor ay principe boppam te safina bu daanoo wala safina bu liggéeyut mais ñun duñ seetaan yëfi Sëñ Tuubaa yu daanoo yu yàqu jamais ak ku ko a yore te lu doon liggéey non jamais ñu koy seetaan muy daanu wala muy am benn problème ah ku mën a dañ koy soutenir ko ñun ñëpp benn lañ mais Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa la ko ko li kenn euh, fayugun nañ ko nag parce que ay ndaw itam bu dee li ay ndaw lañ parce que nit euh, même boo ko fayul itam soxla na aw dàll soxla na lu mu lekk soxla lu mu kii mais amagun ko amagun ko ñoom nag ñoo volontaire moom laa ne ay ñoo xam ñu bëgg sëñ Tuubaa ñu jeex sëñ Tuubaa jël seen doole seen lépp kenn fayu leen dara pourtant kenn fayu leen dara waaye nag euh, euh, bi ñu xalaatee nag ñun ñun ñi nga xamee ne xaj na xaw nañoo ci euh, dara sëñ bi ñoo ngi xalaat ah, pour jéem leen a pour xoolu leen dimbalee waaw parce que bi ñu ñëw nag non dañuy engagé wu kenn fayu leen dara jëmi sëñ Tuubaa la ñuy liggéey nee leen lii du dëgg lii du def nii Xoddaamul Xadim du nii kii nangam ah, ay citoyen ngeen citoyen mënut a jubani nangam nangam ànd leen a police xaaga sa xaaga sa nii la ñu doxee mais ñun li ñu dox ci la ñun doxuñu ci ay como como wala ay kii